balaa ñuy dégg ci immigration bi day ñëw ci yëpp Nick Doff mm-hmm. comme ni nga koy waxee sànq ci Cheikh Bara Nick Doff aussi chef d'entreprise la ko xam ne ci mm-hmm. wàllu mbay mi ñëw na investir Sénégal lu bari ñu bari yaakaaroon ko depuis ay weer mu nekk ci kaso bi nag mm-hmm. euh, Mass euh, Nick Doff ci ban situation la nekk yow mi faral di gisee ak moom euh, ban situation la toll waaw man jotuguma gise ak moom parce que benn booy bu fa jógee temps yi nga xam ne dañ ko jàppoon ci manifestation yi moom laa gisal mu ne ma moom jot na gisanteeg moom ci kaso bi ba ba jëlante ay numéro parce que depuis loolu maa ngi waaj pour dem seeti ko mais xam naa ne temps bi moo ko may wërgul mais incha allah du yàgg dara dinaa fa dem mais en tout cas daal li ñu ciy wax mooy dañoo xamatul affaire yi lan lay niru parce que mënuñu comprendre koo xam ne dafa saaga te saagawul kenn ci ngelaw li rek la doon saaga parce que dafa meroon mu xëyaat def vidéo ne maa ngi jéggulu ñëpp xam nañ ne nit tooñ ne dafa jéggulu loolu jëfi doomu aadama la mm-hmm. nangu ne na moom dafa juum waaye mënoon nañ ko avertir ko wala ñu téye ko sax benn un mois bàyyi ko mais benn six mois boo xam ne kenn mënatu la wax ne lan lii lan lay niru quoi. liberté provisoire bu mu dugal ñu bañ. waaw te li ma jaaxal mooy ñeneen dañ koy def te dara du leen ci fekk. bu fekkee nag réew mi dafa am ku ma am ndey ku ma amul ndey nañ ñu ko wax parce que nit koo xamante ni la euh, kilifa la yor soxna yor ay doom yor njaboot am ñu topp ci ginnaawam yaakaar ci ñoom muy liggéeyloo ay nit yu bari. Mhm. kon kooku tey bu ñu ko téyee tey ci kaso bi ñu ngi koy lu ñu ko waxuma la ñu ngi koy lor mais ñu ngi lor ñeneen ñi nga xam ñoo nekk ci ginnaawam. Mhm. kon jot na il est temps ñu bàyyi ko mu ñibbi ci ci njabootam. Mhm. parce que foofu lañ toll quoi parce que xamatuñ lan lay niru daal vraiment. te dama gis grand yi rappeurs yi dañoo ñoom ñëpp dañu dëxañu waaf kenn nangu mu mel ni am na ñoo xam dama dama xanaa li ko ko ko yéene parce que tey ji mënuñu donte benn bis la wala ñaari fan sekk nañ ko nit dox mu rafet war na tey su amee jafe-jafe ñoom ñu génn taxawu ko waslu ci àq mhm. mais dama gis gaa yëpp dañu doxu ñëpp ne mii kenn waxu ci mhm. mais vraiment lu ma jaaxal la daal mhm. muy moom muy Karim Gueye parce que ñun ñëpp 2012 ñoo àndoon di wàcce di xeex ci tali bi ba tey ji ginnaaw yàlla tey faloog Macky Sall tey ji ñun dañ cee participer parce que tey 23 ans ñun suñ juguloon tey ji ñoom duñ nekk que Abdoulaye Wade mu togoon muy 25 pour cent bi ak vice président bi tey 2012 moom moo jëloon première kon premier tour la doon jàll. du am deuxième tour. ñun ñu taxaw xeex loolu tey ba tey Macky Sall tey mën a ñëw falu ci pouvoir bi. kon war nañ bàyyi xel nit dof moom bokk na tey ci ñu leen fal. kon tey suñu gisee mu mel ni tey benn acharnement bu am parce que gis nañ fi benn Kaliphone jàpp jigéen dóor ko ba gaañ ko benn un mois ko tëj bàyyi ko mu dem. léegi saaga ak ak blessé nit lan moo gën a garaaw. te saagawul gis nañ fi ku ne président dafa war a rey di tëj dara fekku ci gis nañ koo xam ne ne buñ rayoon quatre-vingt-dix pour cent sénégalais yi dix pour cent yi fi sax dara fekku ko ci te wax yooyu moo gën a garaaw foofu lii li li li li nit dof wax parce que mer na yàq nañ programme mooy show of the year bi te show of the year yëpp xam nañ ko fête bu mag bi gën a mag ci hip hop Galsen ni dof moo ko fi teg parce que gars yi ci ay salle lañ doon dem tey jii moom moo ñemeel dugg ci stade yi tey di ko feesal mhm. kon kooku warul nañ koo xam dañ koy làq jant bi parce que dafa am ñu yaakaar ci moom dafa am ñu ñuy liggéey loo ñoo xam dañu dañu soxla présence am ci mbedd bi mhm. te amul benn xew-xew bu Sénégal am boo xam ne mosoo cee gis nit daf taxaw participer ci yàgg na ci xeex yàgg na ci xuloo muy moom muy Karim Gueye dañ daan xeex ndax Sénégal moo leen tax di xeex tey su ko neexoon dem tëddi France am nationalité France am mais gëm réewam moo tax mu ñëw investir fi Sénégal toog fii di xeexal réewam ngir bëgg réewam avancé mhm. kon mais mais Mass waaw euh, Nick Doff maanaam dafa saaga xëy jégalu ba mm. tey mi ngi ci kaso bi même buñ ko waroon na sax te mais waroon nañ ko mën a àtte parce que flagrant délit la lu mu def la ñëpp ci teg bët. Mhm. gis ko mhm. pour yow lan moo waral information judiciaire bi est-ce que nekkul lu mu bokk Pastef moo tax. ah loolu lay niru di parce que loolu la ñu Sénégal ñëpp gis nañ fi kii bi mu dóoree jigéen fat fat dañ ko àtte rek placé ko benn un mois mu dem ñibbi këram kii moom ñu dëj la fa rek na la yow toogal di xaar yow ci bande tous ba kañ. Mhm. nañ ñu wax lan la def lu tax ñu war ko mën a téye benn six ba léegi àtte wuñ ko waxuñ ko yow nga jëm wala droit nga jëm. parce que loolu moo yàq réew mi gis nga am réew bu ñu ko yoree dañuy yemale ñëpp. Mm-hmm. ki far fii ak ki far ci opposition ñëpp a yem ci réew mi parce que loi dafa war a valable pour tout le monde képp ko wàcc ci yoon dañ la war a teg ci yoon loolu ñun d'accord nañ ko. Mm-hmm. mais bañu ñu ñu tey ñu ñu ñuy def ko ma ànd ndey ko ma amul ndey. parce que vraiment tëdd gi mu tëdd ci kaso bi yàgg na fa trop te kenn mënatu la wax tey jii lan la def lu tax ñu war ko mën a téye six mois mhm. ndax li mu def ñëpp gis nañ ko juum na saaga kenn d'accordul ci saaga a am buñ ko àtte mu xëyaat génn na maa ngi jéggalu parce que dama juum ñëpp loolu jëfi jam yàlla moo ko wax xalax ko min duufin man maa leen bind ci ak matadi kon doomu aadama matul bu defee juum xëy na maa ngi jéggalu vraiment waroon nañu ko woo avertir ko sax jarutoon tëj même bu ñu ko tëjee benn un mois doy na mais benn ba tey kenn xamatul ni daf léegi lan la def nañu ko wax li laay rasoli wala ñu bàyyi jàmbur ñu yaay mu dem ñibbi parce que nag il temps mu jot na mu génn ci kaso bi waaw parce que tey dafa am ñu ko yaakaar dafa am njaboot dafa dañ ko dañ ko soxla ci biti parce que tey li muy liggéeyloo ci ay nit ci ay Sénégal kenn xamuñ mu toll kon jot na tey ñu bàyyi ko mu ñibbi gërëm merci Mass xam ne ça li Mass wax lu tax ma daf ma xaw a mooy mhm. ci jamono toll ñëpp dem di mbëkk gaal yi moom mu dem Europe am possibilité dëkkoon fa toog fa ñibbisi investir Sénégal pour man kooku exemple la nga ko waroon def sax ci jeunes yi mais <laughs> place am doon woon kaso quoi exemple la ko waroon def. Mm-hmm. waaw waaw mas yow yow yàgg nit dof euh, miinante ngeen. benn yoon lañ mës a taxaw waxtaan. lañ mës a taxaw waaw mooy daaw jéeg bi muy waajal soo of de bi muy fii euh, mm-hmm. kii bi. Euh, boobu waajal kii bi la woon. waaw waaw bi muy waajal soo of day ñu toog gisante waxtaan lu bari. mais yàgg naa fekk ay pour yéeg sur scène wala. waaw dama nañ ko di waxtaan te parce que doon lijjanti kon yow sa bopp non non lijjanti woon sama bopp parce dama ko soxloon pour gis ko gis naa ko waxtaan naa ko même scène bi tamit ci la bokkoon parce que ah, loolu mooy lijjanti waaw d' accord ba euh, yàgg naa ko fekk Parcelles Assainies yi muy ñëw di léegi ñaareel bi yow Mass waaw euh, nga nit dox nga ne seeti woo ko encore mhm. ah, seetee ko waaw seetee ko waaw mooy seeti woo ko rek ko mais c'est que li ngay wax grand yëpp yow yaa ngi ci yow fi mu toll nii bi ngay yow gis doo sa bopp nga ci nekk sa bopp nga doon lijjanti ñaareel bi euh, bi nga xamante ni bi tamit euh, ñëw nga fi ci plateau bi maanaam nit dof nga présenté woo pour ñëw ci plateau bi waaw man bu ma bi ma la déggee ngay wax pour man yow da nga xamanteeg nit dof bu baax a baax waaw d'accord léegi yow xamante woog nit dof maanaam yow maas euh, li ñu naan malheur des uns fait le bonheur des autres yow ci mbirum nit dof yow fi mu toll yow ci nga bëgg a profité yow pour yëkkati sa carrière wala. waaw loolu yow sa xalaat la mën naa la ko nangul du ma ko bañ. amee ah, xam nga yaa non mais nga ma da nga ma posé question da nga may ma tontu. Hmm. bi laa njëkke waaw ah. depuis bi ñu ko jàppee ba boo ma seetaanee ci sidi yaa ngi gis maa ngi wax mbirum nit dof. yaa ngi wax ci a dem ba ñëw may ma ma ñëw may ma ma ñëw hmm. xam nga relation soxlawul ngay ngay toog ak nit ki wala ngay dëkk ak moom. Hmm. tey jii dañoo bokk lu ñuy jëf. Hmm. muy benn combat bu ñuy xeex. Hmm. kon jàpp naa ne ko li olof naan koo bokkal teen yéenay laxasoo ay goj. rap lay def rap lay def. mais est-ce que li gënoon a rafet waaw may ma yow it ce que li gënoon a rafet. waaw tey yow avant que ngay lijjanti pour toog ci plateau. waaw li gënoon a jaar yoon pour man li nga xam ne moo njëkkoon a nekk yoon. mooy nga dem. gisi nit doof waaw dem wuti ji permis parce que yomb na mën nga dem wuti permis dem gis nit doof nga toog waxtaan ak moom waaw xam nga lan moo partagé ak moom mbir mi du dëgg ba noppi nga xam ni bu bu fekkee ne parce que yow fi nga dafa mel ni yow bi ngay wut invitation da nga ko wut ci turu nit doof du dëgg d'accord maanaam booy wut ci turu nit am na noo xam ni moom nga war a njëkk a jiital mais boo jiitalut loolu ba noppi di wut eh, wut invitation ci turu nit doof jaaduwut wala déedéet. Ah, d' accord yow maag yow def nañ fii 2011 xaw ma 2013. fii émission fii man ak yow ak Béti. waaw ataaya. Mhm. kon man waruma ci turu nit dof mhm. wutuma ci tur. Mhm. parce que avant man ma koy xam am naa tur parce que 2009 ba léegi maa ci rab bi ku ma yàgg suivre xam ne maas yàgg na ci rab bi. du ma ci gan. kon wutuma ci tur. deuxièmement dama gis ne kii doomu aadama la comme ñun ñu bokk lu ñuy xeex te mu yàgg xeex injustice te ñu gis lii ñu ko teg injustice la kon jar na jug ñu xeexal ko mhm. parce que yenente bi dana xeex ñett la man raa minkum munkaran fal yu xayru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaani fa in lam yastati fa bi qalbi wa zalika ad'aful iman bi ci njëkk mooy boo mënee xeex ak sa doole nga xeex ko ak sa doole soo ko mënul nga def ko ak sa làmmiñ soo ko mënul nga naqarlu ko ak sa xol mhm. kon nag ñun amuñu doole bu ñu demee di foqati bu génnee nit dof am nañ suñu làmmiñ mën nañu toog ci palaata ñu toog waxal ko pour nit ñi dégg na xam ne lii ñu ko def naqari nañ mais est-ce que nekkul li genn booy ragal loo xam ne voilà non foofu dama lay li booy ragal des fois dem bari na ci booy Pastef yoo xam ne am ñoo xam dañuy nekk sax ci prison mhm. mais dañ naan yeneen seen yeneen nit bu leen ñu seet si mhm. am na am na loolu am na bu leen ñu set si parce que mën ngeen ñëw ñu identifier leen comme réew moom kenn xamatul Mm-hmm. li fi xew est-ce loolu ba tey bokk na ci parce benn jour maa ngi doon dem tribunal benn waaye loolu wax mu ne ma bul dem ah. même ah, même manifestation yi nii su amee am naa ko yu bëri loolu bul génn yow soo génnee dañ la jàpp parce que gars yi da nga fës dañ la xam mm-hmm. waaw ah, te pourtant man. voilà voilà voilà voilà ba tey ba tey xam nga xam nga tey jii. Sadio man gis naa koo xam ni. Sadio gis xamante ni kii euh, gis naa koo xam ni ku ko jege koo xam ni dugg na ci kii mais ñeneen ñoo ñoo ko wax ne ko. bul dem jarul ngay dem. tey jii euh, Cheikh Omar Bamba Diop mi ngi jiite nga xam ne mu daag doomu doomu daara yi. lu mu def ànd ak Cheikh Thioro Mbacké dem cité kër góor gi ñu jàpp ko dugal ci kaso. Euh, anamu tey. parce que loolu loolu tey jii ñun buñ jamono mën nañu def loolu parce que tey da ngay xëy rek ñu la taqal la ne la yaa def dara mm-hmm. kon tey ñun am nañ suñu làmmiñ mën nañu wax foofu a jox yéen a fi jël yéen ñoo fi nekkoon a fi nekkoon ak moo di njiitum ba def ko li nga xam moo di njiitum mm-hmm. ki nga xam moo di ni def euh, ci prison bi donc yéen defaloo leen loolu Karim te yow kon da jël engagement nga ni xaaral ma defal ko nii def

sa dafa mel ni sa xeex ci mbirum rappeurs yeeg euh, activistes yi rek nga ko nga ko nga nga ko nga ko sa ciblé fi nga ciblé foofu la mais aussi yaa am na yeneen détenus euh, politiques yu nekk ci biir prison bi soo nee injustice ngay xeex sa sa kii bi waroo ko wutal cercle kase da nga war a dugal ñi nga xamante ne nii ñeneen lañ ñu ñu jot a jàpp ci mbiri te aussi Omar lu mu la wax c'est pas raison bu tax tamit da nga war a toog parce que nit ki bu fekkee ne yow da nga koy kon non kenn waxu ko ko depuis six mois yow parce que am na yenn délits yoo xam ne boo ko defee boo amee 6 mois dañ la war a àtte donc boobu ba tey nga ne da ngay xeexal nit bi jëluloo peine sax essayer pour dem. waaw léegi léegi léegi d'accord naa ci sa question. Ah. Ah. man lii daf may neex damay bëgg débat. Ah. muy muy xaw a niveau bi di yéeg tuuti li mu wax loo am solo la. man da ba ci mbirum dialogue bi maa ngi ko doon wax mooy li ma wax mooy yàgg leen mu suivre biir ki Demba Ndiaye rek bi ma koy wax nee naa war a même ñi ci bi te amuñu tur amuñu ku leen waxal dañ leen war bàyyi ñu génn. boo mu seetaane barki bu la neexee après nga dem Feeling Dakar nga xool ko. Mm-hmm. parce man sama xeex du ko siiw kese. am na koo xam ne siiwul mi ngi ci kaso bi te pourtant kenn xamu ko kooku dañ ko war a xeexal mu génn. Mm-hmm. moo tax man toujours su ma wax dama naan booy ci kaso bi yëpp nañ leen ñu dem. parce booy bi mu ci gisal barki démb bañ euh, fan yi ba ñuy waxtaan fii Parcelles Assainies moom tam moo ma gis expliqué ma kaawam parce que da ay greffas moom ci la ma expliqué affaire yi ñu doog mais gis nga mbir mi du question ne nit xam nit mooy di toog ak nit wala ngay fréquenté nit tey ba ñu gisee ne nit dof dafa am njariñ ci société bi am lu muy participer ci société bi ñu téye ko kon dañoo war a jug waxal ko ba te tey ba ci Cheikh Bara Ndiaye bu ngeen suivre maa ngi koy maa ngi maa ngi bokk ci ñi ñi génn la waaw ay Cheikh Omar Diagne ñoom ñëpp bari nañ ay Ibrahima Gueye lay leer toujours ñun li ñuy wax mooy mm-hmm. képp ku nekk ci kaso bi rek lañ mm-hmm. génne ñu dellu seen kër parce que soutien de famille nga mm-hmm. waaw léegi njaboot soxla nañ la waaw léegi il faut man ñu ñëw ci beneen bi beneen bi beneen bi waaw beneen bi bës bu yee wax bës moom ak baase xàmmewuma la man baase laa xam bës loo gàggaat rek balaa saa di ñëw ci immigration bi rappeurs yi bi jàppee Karim dem nañ ca pale ba am na audience bi ñu fi amoon wax ba ci la Karim génnoon mais bii dañoo gis ne budul Fou Malade waaw ah, dama koy dégg moom mu ciy wax heure bu taxee dina ci ñaan rappeurs yi daf mel ne seen diggante ak nit dox xam neexul woon mhm. ñoom dañuy wax lii nit dof wax lii mais est-ce que nekkul ni tamit danoo deful effort pour mu génn rappeurs yi moom laay wax ni parce man dama gisul kenn ku ciy toog di ci wax non mbir mi mbir mi tey jii xam nga tey man bu ma demoon seete ko ci suuf mhm. kenn du ko yëg mais tey moo toogee ci plateau bi wax ñëpp yëg ko bii moo gën ah donte nag euh, xeex moom mooy li ma la wax rek dompar sax ci sot la bokk dafa jaadu tey rappeurs yi comme ci man di doon nga génn waslu ci àq parce que li ko dal mën na ma dal mën na dal keneen ak keneen te ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk benn combat bu ñuy xeex parce que 2012 bi ñuy xeex ñun amul woon ki diw kii diw ñun ñëpp doon wàccandoo ci terrain bi di ko ñàkkante waaw Mass bon d' accord bon léegi parce que yow bii nga fes mais boobu moom 2012 gisuma la woon léegi Mass bon léegi <laughs> <laughs>